démb. le point de la CAN waaye tey ñu ñëw nar a remplacer parce que moom moo. <laughs> yor rubrique le point de la CAN ñu koy mm-hmm. saluer au passage. démb ñaari match moo amoon la première match c'était entre la Guinée équatoriale et Guinée Conakry mu nekkoon match bu neex. ñu gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy Guinée équatoriale moom mooy équipe surprise ci CAN bi parce que quoi qu'on puisse dire moom mooy éliminé moom moo naroon a éliminé sax li nga xam ne mooy le pays organisateur muy Côte d'Ivoire door ko dernier match am par 4 bi à 0 ñoom ak Guinée Conakry la mu nekkoon match bu neex en premier mi boo xoolee daanaka match yi c'était en quelque sorte équilibré équipe bi nga xam ne moom mooy équipe Guinée équatoriale amoon nañ benn penalty malheureusement ki nga xam ne moom mooy Nsoué nekk seen meilleur buteur nekk le meilleur buteur de la compétition actuellement avec 5 bi moom moo raté li nga xam ne moom mooy penalty bi et le Guinée a profité de ça malgré que amoon nañ benn benn carton rouge ils ont joué à 10 contre 11 ba boo xoolee à la dernière minute à la 98e minute si lañ dugal benn bi mu nekk bii assassin dañ ko mën a tuddee parce que c'était à la 98e minute dañu dugal rek match bi jeex donc match boobu mu mel ni Guinée Conakry moom moo qualifié devant Guinée équatoriale par 1 but à 0 à la 98e minute beneen match bi ñu doon topp moo nekkoon benn choc woon parce que Égypte ñëpp xam ne am na sept titres sept champions d'Afrique donc du équipe bu ndaw ak RDC RDC dafa nekk ci jafe-jafe ku xam RDC xam ne un pays boo xoolee daanaka championnat Afrique boo xoolee RDC si club yu fa mag yëpp daanaka fa lañ bokk. donc pays de foule RDC la woon ak Égypte ñu joué benn match bu métti 90 minutes kenn gañewul ñu dem temps kenn gañewul prolongation après 120 minutes amul vainqueur ñu dem tiro bi RDC a a finalement gagné l'Égypte. match bu neex par 8 à 7. Mhm. mu mel ni loolu tamit enseignement bu si mën a tiré mooy. on a vu que ces dernières une équipe égyptienne boo xam ne bu ñëwee il refuse de jouer Égypte dañuy bañ a jouer ñoom ils vont tout pour yóbbu la li nga xam ne moom mooy à la minute pour jéem la yóbbu tiro bi parce que loolu moo nekkoon seen point fort mais mu mel ni depuis deux à trois ans seen point fort boobu équipe yi dañu di commencé di leen si fekk si moo nekk seen point faible parce que Sénégal éliminé na leen fi jël champion en boo xoolee à mu démb Guinée ñu ñëw éliminé war leen RDC par tireur bi mu mel ni donc bu fekkoon dañu jël stratégie boobu c'est à vérifier stratégie boo xam ne baaxul la pour ñoom nañ ko teg à côté ñu jéem xool yeneen mooy ñu donc ñaari équipe ñoo qualifié démb muy Guinée Conakry ak RDC. tey euh, match war na am ñaari match ñooy am entre Cap ak Mauritanie Mauritanie tamit surprise la équipe surprise la parce que moom mooy éliminé ki nga xam ne mooy Algérie. Algérie kenn xalaatuloo ne Mauritanie dana ko éliminer muy daj ak benn équipe boo xam ne équipe cap-verdienne boo xam ne équipe joueuse la dañuy teg bal dañuy football et puis dañuy am ay atu boo déggee dañu am ay atu mooy bal arrêté dañuy dugal bal arrêté à chaque fois muy coup franc wala muy leen dañ dugal yaa un boo xam ne moom lañ tuddee bébé boo xoolee moom mooy seen star moom mooy yor tout ce qui est bi donc équipe boo xam ne bu ñu war a bàyyi xel la mais équipe Mauritanie tamit bu ñu war a bàyyi xel la parce que bu ma nee bu ñu war a bàyyi xel la Mauritanie xam lan mooy seen force collectif la ñu am parce que seen coach bi nga xam ne moom moo nekk Amir Abdou moom moo yoroon euh, Comore en bi mu yoree Comore dafa qualifié en quart de première participation dafa qualifié ren tamit il a fait même chose pour la Mauritanie dafa qualifié donc moom en huitième de finale moom nar a nekk équipe boo xam ne dañ bàyyi xel parce que c' est fin tacticien tacticien boo xam ne il est tellement doué ba nga xam ne à chaque fois équipe bi nga xam ne daf koy am adverse daf lay teel a boo xoolee son match contre Algérie teeloon na avertir algérien yi waxoon na à Djamal Belmadi qu'il fallait s'attendre à tout mm-hmm. Belmadi xam naa da ko jël woon pour ay caaxaan mais finalement dafa am surprise donc match boo xam ne 50 50 la pour man ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ku nekk mën naa door sa morom mais attention à une équipe mauritanienne mm-hmm. beneen match moom mooy le choc de la journée entre le Sénégal qui est champion en et la Côte d'Ivoire le pays organisateur match P attention au lion qui dort wala voilà, attention au l'éléphant blessé au blessé voilà au blessé de guerre Côte d'Ivoire tout compte fait équipe bu mag la te boo xoolee dernière confrontation entre Côte d'Ivoire ak l'équipe nationale du Sénégal yëpp Ivoiriens yi lay favoriser mu mel ne tey le Sénégal dafa war a ñëw pour briser li nga xam ne moom mooy plafond de verre boobu laa ko mën a tuddee wala pour briser li nga xam ne moom mooy Ivoiriens yi lañ teg suñ kaw parce que dernière confrontation yëpp ñoom ñooy ñuy gagné donc le Sénégal a la lourde tâche d'éliminer le pays organisateur même bu fekkee même pays organisateur bu nekkut en CFR mu nekkut pour cent ni ma ko mën a waxee parce que le match c' est pas équilibré. Mm-hmm. on va on va pas se la passe bu ñu doon def pronostic dañ naan soixante trente soixante mm-hmm. pour le Sénégal trente pour la Côte d'Ivoire. mais attention parce que il peut y avoir des surprises équipe ivoirienne bi ils ont changé de coach actuellement adjoint moom moo fa nekk en tête bu ñëwee dafay renouveler waat psychologiquement mën na leen favoriser mën na leen défavoriser donc attention à, à l'équipe nationale du Sénégal attention à la Côte d'Ivoire. c'est important merci beaucoup Rama oui li ma si bëggoon wax rek euh, moom mooy euh, tey jii même bu fekk même bu dul dara sax Sénégal ak Côte d'Ivoire gis nañ mhm. li nga xam ne am na si ñaari pays euh, genre. sénégalais yi nu ñu bëree Côte d'Ivoire donc euh, du doon match boo xam ne dañ koy joue comme comme ni ñuy wax dañ koy jouer hors de notre pays mais day nekk match boo xam ne dañ koy jouer hors de notre pays mais dina am beaucoup de sénégalais Côte ivoiriens yi peut-être li ñuy ëppee du bëri foofu noonu euh, ba pare euh, leneen aussi mm, mën na dama ko si wax comme comme dañ ko dégg si li nga xam ni moom mooy ci information yi ak si presse bi ñi nga xam ne ñoom ñooy ivoiriens yi di wax ni que bu Sénégal marqué but dañuy jàpp sénégalais yi dóor leen loolu loolu des c'est des messages yoo xam c'est des messages yoo xam mën na mën na mën na indi Euh, leneen loo xam ne mhm. peut-être bokkul ci football parce que euh, tey jii ni boo gisee sénégalais yi bëri fële nga xam ne moom mooy Côte d'Ivoire ñu bokk li nga xam ne moom mooy gradin yi nekk fa euh, tey jii lu ndaw mën na créer benn mhm. loo xam ne peut-être tension boo xam ne mën na si ñàkk donc c'est juste pour wax ni que bon Sénégal la Côte d'Ivoire c'est des pays yoo xam ne c'est des pays amis waaw c'est des c'est parce que di nga gis Ivoiriens yi bari nañ Sénégal noonu la Sénégalais yi bëree Côte d'Ivoire donc c'est des pays bon c'est la CAN ñoo organisé donc comme dañuy wax Sénégal pays de la teranga teranga bi nañ ko jël yóbbu ko foofu ñoom ñu ñu ñu dalal ñu ñu indi li nga xam moom mooy hospitalité indi fair play mm-hmm. parce que euh, kon football li ñuy wax football nekkul pour euh, pour loo xam ne dafay dafay tasaare football pour rassembler la pour boole li xam ne moom mooy ay nation voilà boole ay boole ay ay ay ay ñoo xam ne peut-être xeet ñëw dajaloo loolu moo nekkoon objectif football donc euh, c'est des messages yoo xam dañ koy gis ci réseaux sociaux yi ne c'est pas à nekkul ci li nga xam ne moom bokkul ci amu football en fait donc loolu laa si bëggoon wax Kourouzitaa. c'est important oui. Euh, en fait c'est un contradictoire parce que yow mën a wax la CAN de l'hospitalité ba pare ngay woote à à yoo xam ne c'est pas important et puis luy prouver ne même ñoom Ivoiriens en personne les autorités ñoo ngi siy bàyyi xel le préfet de Yamoussoukro boo xoolee. hier samedi dafa organisé woon benn journée boo xam ne c'est entre sénégalais ak ivoirien pour ñu toog waxtaan benn marche amoon na marche sax pour ñu def benn marche toog waxtaan juste pour li nga xam ne fair play pour yee ñi nga xam ne ñoo ñooy supporté parce que lu mën di am si match bi quel soit alpha résultat bu mën di am sport lay doon te sport dafa war di boole mais warul di diviser donc quel soit alpha équipe bi nga xam ne moom moo gagné wala ne Sénégal yi bari na ci mooy Sénégal tey mooy dalal Côte d'Ivoire malgré Sénégal ñoom ñoo dem ci mhm. terre ivoirienne mais Côte d'Ivoire l'équipe nationale Côte d'Ivoire ñoom ñoo déplacé de Abidjan à Yamoussoukro ñëw fekk si nga xam ne ñoom ñooy Sénégal yi mhm. la carte de l'hospitalité le pays de l'hospitalité donc wax dëgg yàlla problème war na fa mën a a ñu a ñàkk mu a dem ba am si ay animosité yoo mhm. xam ne am na si ba nga si dégg yenn yi te loolu mën na ñàkk euh, tey jii Sénégal Guinée euh, on peut dire que benn pays bi la. Mm-hmm, mm-hmm. parce que parce que guinéens yi ni ñu ni ñu bëree fii nga xam ni moom mooy mm-hmm. moom mooy Sénégal fi la ñu nekk di liggéey di daan seen doole te quoi qu'on puisse dire yi dañ leen yaatal. amuñu benn problème donc parce que ils se sentent chez moo tax ñu nekk fi su fekkoon ni euh, sentiruñu fi li nga xam ni moom mooy hospitalisé hospitalité wala leneen du ñu fi bëree noonu. donc dañu bëgg a wax ni rek Afrique déjà. li nga xam ne moom mooy coupe d' afrique des nations lu mu métti métti métti Afrique euh, coupe bi Afrique lay des du génn feneen bu ko Guinée jëlee Sénégal jël ko Côte d'Ivoire jël ko mm-hmm. keneen jël ko tout temps tout temps mm-hmm. euh, rek euh, ndam li fi nga xam ne moom mooy Afrique lay des et des frères parce que dañuy demalante te ay pays yoo xam ne ay pays yu jegante lañ donc am na yu bëri yoo xam ne xajul ci diggante bi nous resterons des frères en chair parce que te ivoirien tamit ñoom keroog faraloon nañ ñu di ma naan bi ne léegi ñun la ñuy topp tamit fair play rek xibaar yi ñu si bëree bëri euh, Sénégalais lañ faral bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul Sénégalais lañ faral parce que mm-hmm. gis nga le problème à nekk même Ivoiriens yi ak les supporters amuñu confiance si seen équipe. parce que bu ñu waxantee rek amuñu confiance si nag xam nañ ne actuellement yoruñu équipe donc ñoom. ci seen poste yi sur les réseaux sociaux da ngay dee voilà donc amuñu confiance si seen équipe mais. actuellement situation bi ñu nekk la moom moo leen di pousser à ce que ñu supporter seen équipe et c'est fait normal mm-hmm. situation moom moo leen pousser mais football rek quel que soit alpha au-delà de la Côte d'Ivoire Guinée Cameroun mm-hmm. Égypte on est tous des Africains mm-hmm. et ñun africains yi suñu bopp en personne bu fekkee dimbalante wuñ kan moo ñuy dimbale. hier j'ai communiqué de de de de la CEDEAO boo xam ne Mali ak euh, Niger ak euh, Burkina ñoom dañuy wax ne dañuy génn CEDEAO et puis c'est mal c'est contradictoire yow nan bëgg a wax ne. dañu war am li nga xam ne moom mooy union africaine unité africaine ñu on parle de panafricanisme nga ne da ngay génn CEDEAO même bu fekkee CEDEAO gis nañu yaaka des échecs réussir uñu seen mission yu bare bare bare mais c'est pas la bonne solution parce que buñ yaakaaree ne européens yi wala asiatiques ñoom ñooy ñëw pour développer ñu ñun en personne Afrique wala ñoom ñooy ñëw pour boole ñu. pour régler nos problèmes te dañuy gën a diviser. dañuy gën pour mieux régner donc ñun war nañu mën a toog ñu xool jël seen problème yi nga xam ne dañ am yépp ñu ko

bu euh, li koy prouvé mooy Guinée bi mu amee temps yi la passé benn explosion sénégalais ñoom ñoo fa njëkk seen sapeur pompier sénégalais ñoo fa njëkk après le malien yi ñëw ainsi de gis benn sapeur pompier français mm-hmm. gisoo benn sapeur pompier russe gisoo benn sapeur pompier chinois mm-hmm. donc loolu war na leen mën yee ñu jël ay divergence politique yi nga xam ne teg ko à bu fekkee Afrique dafa woote ñu nekk benn après yaakaar naa Afrique mm-hmm. bu booloo lu ñu point bi amoon na solo ñu ngi lay jaajëfal nga jaare fa tàggatoo ak mbokk internet yi la doon seetaan. merci Cruzita merci à tous les téléspectateurs de Evidence TV di leen remercier di leen wax ne c'est toujours comme ça fii ci Evi TV émission matinale ma à chaque fois comme ça interaction la ñun ak ñoom à chaque fois dañuy bëgg ñuy réagir di joxe seen xalaat di joxe seen position. ñoo ngi remercier ñëpp ñi xam ne jàpp nañu ci émission bi ñu nekkoon derrière la caméra ak la partie technique ak ñi nga xam ne ñoom ñoo géroon maquillage bi ñoom ñëpp di leen remercier di remercier Rama aussi tamit ci ci ci intervention yoo xam ne yu pertinent la def na ko ci différents sujets yi ñu fi souligné yoo tamit di la remercier di remercier Ibrahima ak euh, Abdourahmane xam ne ni ñoom ñëpp voilà ñoo ngi woon amoon nañ mm. yéene ñëw bokk ñun plateau merci beaucoup Cheikh euh, am na solo trop Ramatoulaye la tàggatoo mbokk internet yi. voilà merci Cruzita d' abord maa ngi lay remercier bu baax di remercier Cheikh mi nga xam ni moom moo fi toog sama kanam euh, di la remercier euh, ci ba tey point de la CAN bi nga indi am na solo di faire un coucou a Ibrahima di ko wax bon rétablissement mu ñëwaat léegi léegi entre parmi nous di jox mbokk internet yi dig daje si kanama si jour de CAN comme à chaque fois rek si match Sénégal yi buy am dañuy. def lépp loo xam ni dañuy def plateau waxtaanee lépp lu ñeel match bi donc maa wax mbokk internet yi à tout à l'heure incha allah. merci beaucoup ma avertir mbokk internet yi ak waa kër a àtte man ak moom tey surtout yi fii a ma jaare fa rek tàggatoo mbokk internet yi doon seetaan amoon nañ mbégte ak contentement saa su nekk di leen présenter seen émission bët set ma àndoon ci tey ak Ramatoulaye Fall ak Cheikh Diagne ma leen remercier bu baax a baax thème amoon ne si caméra yi merci beaucoup Massamba ci régie bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax chers internautes di leen jox rendez-vous rek ba si kanamee tuuti ngeen nar a ànd ak Ibrahima Faye Ramatoulaye ak Cheikh Diagne ci émission jour de CAN ñu di ko tëkkee match bi Sénégal nar a amal ak Côte d'Ivoire ah ñu éliminer pays organisateur bi yéen ma gën a xam ngeen organiser seen coupe ñu nar leen éliminer incha allah di ñaan ndam rek yàlla nañu ko yàlla may merci beaucoup